ko ci jaar ak sunu seen ko ci jaar ak sunu seen ci jaaral kii ci taabal ko ci jaaral fi seen waay yaa rasulallah yaa rasulallah ñu gëm yaa rasulallah yaa rasulallah yaa rasulallah waawaaw yaa rasulallah yaa jaral yaa rasulallah يا رسول الله يا كرمك يا رسول الله أبرار أبرار الله بقل يا رسول الله يا كرمك لا إله إلا الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا كرمك imam Mouhamed El Hadj ku si nekk si góoram ak si santam mu ngi leen gërëm di la sant mu ngi leen di wax kontaan na si seen taxawaay mu ngi leen di wax est-ce que ñu ngeen di jàppee si bës bi xolam seet na trop si yéen wante nag imaam ah du du du du du du tàggu boppam mais lu wax wax baax baax rek macha allah imaam yàlla gën a baax yàlla na yàlla na ko imaam quand vous avez reçu la mission de revenir ici à Fatick pour sukkal bi kër gi mag ñi jox la mission bi si biir mission bi mu am ñu la mag ñi gën ne am na nag si biir mission bi ma yaakaar ne si biir loolu man boo bokk naa si ñi gën a ndaw si ñi mag di désigné jaarale ko si sa jimu ji kon du ko fi amee. man mënu ma nekk lu dul serviteur imam dama ba nga rëddee jumaa ji rëdd moom du nii boobu ba léegi amul bés bu nekk lu dul benn ñaar wala ñett wàññeeku rek ñu ngi yóbbu rek ci moom wala gën a yaakaar boobu ñu am ci yow mais pour si sa loxo yi seetlu yàlla wàcce jiital ak jamono si kaddu yi may jël nag kaddu yi nga xamante ne yàllaa ko dogal ci ñun ñu ngi jiite bi kon ci tur waa bi yëpp laay jël kaddu di kaddu ñaan ñaan nag. dañ ciy jiital ki nga xamante ne tey bu bés bi amee moo ko jiite muy Mamadou Alé li ma wax léegi mooy bu baax dañ ko war a ñaanal ku am sax ñu war dañ ko war a ñaanal xamante ne bu waxee day jàngale bu jëfee day jàngale bu toogee day jàngale wax naa fii ci gàmmu yee weesu ne Momadou allah ji boo ñëwee fii di ko seet boo xoolee fi xale yi gën a bari boo fa demee fekk ko seet Momadou allah ji su tiis amee boo demee fekk ko fa bu jëlee kàddu nit ñi dellu ci suñu borom su xew-xewu mbégte amee boo demee fekk kon daanaka dundam yëpp daf ko mettre au service des populations kon ku mel noonu tiitaru waa Fatick la moo tax ñu war la ñaanal te ñaan yi fi ñaan yàlla ñu ëpp fulla du ko delloo dinañu ko defal parce que noo fi gën a yàggee muy gën a baax ci njaboot bi te lii may wax amul benn kilifa diine boo xamante xew la te du dog ñëw fekk si la parce que loolu mooy ñi ñëpp. ñaan yi nag dañ ci boole waa Fatick yëpp góor ñi ak jigéen ñi ak ndaw ñi ci bés bi di bésu ñaan yàlla na yàlla def jàmm ci Fatick yàlla saafara jàngoro yi faj soxla yi parce que nag yàlla noppi na ci won ñu ne lu am mooma nit day sabablu rek mais yàlla rek ay dogal Fatick gii balaa moo dox Sénégal day dox moo tax ñuy ñaan ci tànk bi yàlla na Sénégal jàmm du fi am yàlla na Sénégal jëm kanam parce que réew boo ci nekkee da ngay ñaan mu dem kanam ak lu mën a xew parce que bu jëmee kanam nit ñi am jàmm te bu nit ñi amee jàmm lu nit di lijjanti mën na koo lijjanti. mbégte la buñ fi teewee te buñ fiy teew. dañ ci ànd ak délégation délégation boobu Khadijaam Seck sànq dellu si na ci monsieur le maire le ministre Matar Ba tamit dellu si na kon ñuy rafetlu ndaje mi ndax dafa nekk lu am solo ci région de Fatick dafa nekk lu am solo tay jii ci commune fati ba tax na buñ koy def ñun ñëpp a ciy sawar jawarte boobu nag li ko waral ñu bari ñu jël kàddu dellu si nañu ci jikko yu baax yi ñu gis ci Mamadou Alaaji ndax ñun liggéey moo ñu fi andi dëkkuñ mënuma wax ne def nañ fi ay at ak i at yu bari ak moom waaye gan même bu ñëwee li ñu gis rek la mën a seere gis nañ ne kuy taxaw waa Fatick moom ci fànn yëpp ndax yenn temps yi nga ñëw ci dëkk fekk ko fa yenn temps yi nga ñëw ci yeneen activité fekk ko fa te saa yu ñëwee taxawaay bu rafet la fay am te yamul ci loolu rek ndax tey jii képp ku fi toog buñ la laajoon du ñàkkul lenn lu baax loo xamante ni seq ko kon ci taxawaay bu rafet boobu nga am imaam ñu la ciy gërëm bu baax te di la ñaanal ndax ñi fi jël kàddu ñépp lu baax kenn du bëgg dara daal ko waaye lii nga xamante ni mooy feebar bi yàlla na ko suñu borom yëkkati nga wér jàmm ak ma dellu si nag ci lu am solo loo xamante ni suñ Mamadou Camara tudd na ko sànq jëmale ko ci li nga xamante ni mooy conseil des de décentralisé biñ fi def bu yàggul ndax tey ji lépp loo xamante ni Fatick région de Fatick soxla na ci fànn boo laal nag ba ci mbirum diine sax document boobu loolu tënk na ko kon tey ku bëgg a jàppale Fatick ku jëpp bëgg a jàppale région yi mooy suñu document de référence moo tax dama lay fekk si ci doléance boobu nga wax ndax loolu yóbbu nañ ko bu yàgg fële ca ministère bi yore mbirum économie ak planification ak ministère bi nga xam ñoo yore finance ak budget état la continuité la maanaam tey ji lépp loo xamante ni nasoon nañ ko nguur gu mën a dem beneen dellusi ña nga xamante ni ñoo liggéeyoon loolu tënk ko fa ñoo fi nekk ba tey moo tax yaakaar naa ni loolu nga xamante ni waxoon nañ ko ci région de Fatick te ñu am jamono yi weesu gouvernement bu bees ñoom it ñuy seetaat naka la ñuy toogee ak plan bu ñuy liggéey surtout projet bu bees bi loolu base bu fondamental la boo xamante ni pour jàppale Fatick pour Fatick mën a gën a dem ca kanam defe naa loolu mooy suñu document alhamdulilahi rabbil alamin ne suñu borom bu la mayee ne loo dul may sa bopp te mënul loo sa bopp dara yàlla may la ko jàppale la ko ba ma àgg fii mu yegg tey ne kon nag wan nga dégloo njukkal yàlla ne ba ñu diisee borom bi ne teg ko ci ki nga xam ni ne boo bëggee gis yàlla bëgg a xam yàlla ne dund ci yàlla màgg ci yàlla jeex ci yàlla kan moo la koy defal ni rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moom rek moom nga koy def mu defal la ko moom rek ngay topp mu dimbali la moom rek ngay jaayanteel sa diggante yow ak borom bi mu nangul la ko ba nanga ko bëggee nga mu defale la ko noonu te toll nañ ci Fatick jamono bii El mais te toll nañ ci Fatick jamono bii. wallaahi mais wallaahi. jigéen dana génn àdduna ci Fatick. mais jigéen dana génn àdduna ci am ku ko sànni du am ku ko sànni. gouverneur toll nañ foofu la. mais gouverneur nañ foofu. Matar Matar. ñu ngi ci situation boobu la. mais ñu ngi dana génn àdduna. mais jigéen dina génn àdduna. am ku ko mais duñu am ku ko sànni. ndax kooku wax ndax kooku wax. mooy dama ragal ñemewu ma. te ba noppi nag. te ba noppi nag. buñ jógee nag buñ jógee nag. ñu ñu bëggoon ñoom ñëpp. ñu bëggoon ñoom ñëpp. dem uti morgue ba dem uti morgue ba. waaw loo fay def. loo fay def comme que ñemewoo ko. rek. thank you